drive a Subaru, donate to dog rescues, have arm tattoos. Thin butch or cottage core, we like to be outdoors in hats and cargo shorts with our ugly shoes. My shoes are gone. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu de conscience des consciences dañoo di siwaatoon rek war di waxtaan ndax réew mu nekk réew mu ne dangaa sukkandiku sa aada sukkandiku sa diine boole leen sotti ci am njàngale moo xam ne ah, day ubbi boppi doomu aadama ji ba bu doomu aadama bi yëngoo oh, day dëppoo ak dereti réew mi yàlla dogal nun ak ngóor jigéen sun aada sib ko sun diine sib muy loo xam ne amul kenn koo xam ne ci Sénégal danga am doom ci ngénte la nga woo ab góor jigéen mu tudd ko amul jenn jàkka ci Sénégal joo xam ne ab góor jigéen yoon may na ko mu nekk fa imam amul jenn jàkka joo xam ne ab góor jigéen sañ dafaa dem di nodd amut te képp koo xam ne euh, boo sañoon sa doom buy jàngi góor koy jàngal ba jigéen waaye góor jigéen du ko jàngal kon dafa am loo xam ne dafa ne ba nuwaay suñ culture ñu war ko doxaale euh, le président de la république monsieur Diomaye Faye ah rupture nga waxoon muy un changement dama ne ak ngóor jigéen kenn bëgg ko ndax am teel naa dugg ci réew mi nee naa la sànq ne amul benn ngénte booy dem mag ñi ñaan ne yal na xale bi màgg ba doon ab góor jigéen doo ko dégg fenn te képp ko am mbokkum góor jigéen da koy daw te doo ànd moom dem ci gàmmu doo ànd moom dem fenn comme noonu la toll te foofu la toll ci société bi dañoo bëgg a jóg taxaw ci dañoo bëgg a taxaw ci boo ci taxawee am nañ yaakaar ne dana mën a lijjanti ko te na muy lijjanti ko ak fa mën a jaar képp moo ñu intégré ak njàngum diine ci biir système éducatif bi maanaam jàngum diine ñu dugal ko ci te bu ñuy créer benn système éducatif nan woo borom daara yi boole leen ci nan woo ñu yor kër te yor seenu njaboot mu jaar yoon ñu boole leen ci nan woo sénégalais yi nga xam ne ah, ay sénégalais ay doomi sénégalais gëm réew mi ñu boole leen ci bu ko defee daanu mën a jubbanti réew mi am beneen doomu sénégalais bu dul lii nga xam ne moo fi ne ak ngóor jigéen dafay yàgg ndax bu demee ci jëm ca jamono yu jëkk ya euh, soldaar yi nga xam ay góor jigéen soldaari yi tubaab yi dañ daan ñëw ci tefes gi xale yi bëri ak di football ñu di leen nax dina leen yóbbu camp ba di leen di fi góor jigéen euh, ndar kenn ku nekk dégg nga ku ne doomu ndar nga mer ana lu koy waral sa xel di ca baat boobu kon ak góor jigéen tubaab bi yàgg na ko fee dugal comme tubaab bi dugal na ko fi te dem na bay sax buñ ko bàyyi mu jébbi bu ko bàyyi mu jebbi ndax bëggunu ko suñ diine bëgg ko amul kenn ku ko bëgg amul kenn benn xale buy ñaan buy ñaan rakk mu màgg doon góor jigéen wala mag mu màgg doon góor jigéen kon nañ ci jóg kilifa diine yi wax ci imaam yi xutba ci te jigéen ñi mel ne kura Macky nga xam dañuy encouragé loolu ah ñu jóg ci ñoom wala seeni bokk wax ak ñoom ak ngóor jigéen baaxut ak ngóor jigéen baaxut waaw ndooy mii ndooy mii gis nañ ko fii New York bu góor jigéen di dee feetu da nga gis mu daal di naaw ni ci biir di fecc ak di tëb doon ab sénégalais di ci gën a soof drapeau Sénégal yor ni ci biir góor ñi tëb ak a fecc ànd ak waa Sénégal lii rafetut rafetut comme nag nun noo opté le changement le gouvernement du Sénégal war na cee jóg war na cee jóg bu njëkk dañ daan jàngale instruction civique ci classe yi daan naan joxe ay leçon de morale ci classe yi waaye loolu lépp tubaab bi da koo dindi da koo dindi mais na nun ay plastique la ay nit la ñoo xam ne lu leen neex la ñuy transformé nañ ci bokk jóg taxaw ci waaw ak ngóor jigéen nag la may leen wax rek ci ne ah dafa yàgg am ndar dafa am na ndar am gore dëkki tubaab yépp la ak ngóor jigéen amoon ak ngóor jigéen am na fa te yéen ñëpp a ko xam kon dañ jóg jubbanti xale yi defar éducation nationale bi dama lu kenn bëggul lu kenn bëggul kenn wut ko forcé le président de la république am na droit recevoir a président góor jigéen le président de la république am na droit recevoir comme comité européen moo ko yónnee le président de am na droit recevoir koo xam ne ak foo mën a bokk loo mën a bokk parce que c' est la coopération internationale ki président bi recevoir amul njëriñ président bi muumu ko fa dëkk yoonu président bi nekku fa amul lum leen di digal dama ne ab gwin même même kër këri diine yi këri diine yi euh, lesbienne dugg na fa am ñoo ay lesbienne jigéen yu sëy jigéen am na ci réew moom te ay kilifa yi ñoo koy def ñoo koy def dama ne kenn dellu waxante dëgg te ngeen jóg ci réew mi kenn jóg jéem a jubbanti réew mi ndax buñ ko defee suñ bopp lañ ko defal buñ ko defee Sénégal lañ ko defal buñ defee ëllëg lañ ko defal may jéggal bu baax a baax nag day ñaan jàmm euh, jàmm loo nga lañ bëgg jàmm lañ bëgg te suñ diine ñu fonk suñ diine suñ aada ji nga xam ne euh, moom lañ yàlla jox euh, ñu judd ci màgg ci ñu aar ko ba dara du ko infiltré waaw góor jigéen ba nekk ca France affaire ma ka nekk Allemagne affaire ma kooku la muy def affaire ma waaye ñun dey waa Sénégal bu soobee yàlla daan jóg taxaw ba aar suñ diine yi aar suñ aada yi aar suñ culture ba lii nu yàlla def ñu ay góor ñu dun góor yu mat sëkk jël ci soxna yi jurum njaboot yar leen ci diine yar leen ci lépp loo xam si dëppoo na ak li nga xam ne moom lu suñ maam bëgg yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko ak ngóor jigéen daal na dàkk ci réew mi na fi dakk lu kenn bëggut lu kenn ñaan yàlla am ko lu kenn ñaan yàlla jur ko état woon nga cee taxaw farata lay doon ndax kat président Diomaye dañ laa fal pour le changement ak coppi ko ak copp yéen ñiy favoriser góor jigéen ñi ne classe chromatique yi na yem leen wala ngeen toog Las Vegas ba ñu tëddee si ci réew mi ak góor jigéen daal du dox ci réew mi man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience